waruñu waru leen ko def war nañ ko def waru ko def mais ñun waxuñu ni bu élection yi am ñun dans un premier temps waxuñu bu élection yi am ñun dañu ni deuxième temps lu ngeen dafal nag dafal nag dafal nag dans un premier temps dans un deuxième temps lu ngeen dafal nag ma wax la rek Pape dama ni bu rek bu réclamation amul woon de façon injuste et téléguidée sur le dossier Karim Wade dama ni ñun du ñu dem créer commission d' enquête parlementaire ñu heure bi waxoon nañu feeroon nañu fekk peut mais c'est parce que injustement la ñu écarté notre candidat que li am am ñu dem saisir li nga xamante moom la jàpp ne moom lañu am mais ñun mënuñu toog deux yow est-ce que Pape mën nga imaginer PDS ak ni mu toll ak li mu def Sénégal ak fi mu jaaree Sénégal Abdoulaye Wade bii rek waroon na tax ñu bàyyi Karim Wade mu dem élection waxuma sax Karim waaw dafa nag léegi dama lay wax non non tafsir man tafsir nag tafsir li ngay wax man nag yaa ngi may bëgg jaaxal léegi da nga bëgg ñu xool ci Abdoulaye Wade bañ a xool ci ci yoon Karim Wade mën a bokk da nga bëgg ñu xool ci ne PDS bokkuñu woon ci ci ci ci élection bële élection bii di ñëw bu ñu bokkul mooy PDS jeex na loolu yëpp dafa war a tax dañu war a xool jël conseil constitutionnel teg fële PDS war a bokk. mais Pape ñun man li may wax ni du ñun ñoo ko wax. non mais Pape dama ni man li may wax ni sénégalais yi ci boppam sénégalais ci boppam yow sa mbokku journaliste yi sénégalais ñoo wax ni lii nii injustice la parce que moment bi juge bi di décider juge bi bi muy décider mu ngi téye kayit lii nii kii nekkatul français exclusivement de nationalité sénégalaise. bi Karim Wade di signé. dama ne moom déclaration sur dama ne non dama ne bi muy décidé laa wax juge bi bi muy décidé xam nga yàgg nga seetaan seetaan ay ay ay jugement ñu dem ba dernière minute juge bi war a juger war a joxe euh, war a joxe jugement kenn dugg ñu ni preuve am na mu suspendre la séance du gàtt génn preuve analysée sans jeu de discours am déet amul loolu amul pap mais moment bi muy décidé il avait la pap le papier comme quoi celui-là n'est plus de, de, de, de exclusivement de nationalité sénégalaise mais loolu dama lay wax ni sagesse xikma bi war a am ci conseil constitutionnel moo tax ñu tudde leen ko ma ñoom ñu nekk ay rôle de régulateur Pape ñun bi ñu conseil ne voté leen récépissé dañ ko nangu parce que dañu jàpp ay sage lañ mhm. bi conseil validé fii wax naa la fi ne erreur lañ def dañu juum la liste des suppléants de Pastef et euh, de Yewwi lan lañ wax mhm. ni son conseil bi ay sage lañ dañoo bëgg stabilité mhm. ku mënal loolu ñooñu waaye ñoo mënal ñoo mënal ni kii ndex wax dëgg ay na yéwén def na effort nekkatul français très sincèrement nañ ko bàyyi mu jàll loolu mën nañu ko loolu bu ñu ko defoon moo gën a yomb loolu moo gën a yomb tey li ñu def conseil bi li mu def nii di lëlbëti daan ay ba ngay bind ak amoog yooyu lii mooy valider ko ni oui effectivement il a donné un décret truc validé loolu moo gën a yomb mais ils nous ont entrés dans une difficulté et sur la base de quelqu'un qui a déposé c'est pas le conseil qui l'a voulu c'est quelqu'un wax ni Karim Wade jour ba ma ko waxee la ma ko wax laa gëj a dégg ba tey jour le 22 laa gëj a dégg Karim waxuma le 22 laa gëj a ba tey parce que d'accord ak moom ci ay position et je le lui ai dit mais je trouve injuste qu'on nous écarte sur la base d'une réclamation boo xamante ne téléguidée deux ans deux fois ñu tere ñu bokk élection je pense que c'est injuste pas et loolu tous les Sénégalais doivent dénoncer ça sur la et puis ñu def ñu ne ñu yéen du ngeen def recours ay yeneen député def recours contre notre loi ñu dàq loi bi ñu ne ñooñu am nañ droit def ko tas am na droit def ko mais ñun amuñu droit def li ñu def mais c'est injuste je considère que cela est injuste et nous avons montré notre volonté d'aller aux élections mais Pape tey jii waxuma sax waxu waxu waxu waxu waxu waxu corruption yi ñuy wax waxuma sax waxu mais jëlal les candidats là yi nga xamante ne ñoom la ñu ne ñooy dem élection jëlal rek 60 pour cent yi. corruption yi du la bàyyi nga jàllee ko noonu. dafa la nga bëgg ko noonu. dama ne dama ne noonu de. lay wax dama ne. ok mais naa la bàyyi na nga eggale li ngay li ngay li ngay wax. j'ai analysé la liste des candidats. ok j'ai analysé la liste des candidats. et yàlla dimbali na ma man damay am information loolu suñu borom moo ma ko dimbali yi nga xamante ni irrégulièrement lañ nekk ci liste bi ñoo xam nañ seen bopp ñi nekk ci biir te xam ne ils sont ñu ngi ci biir xam nañ seen bopp mais candidat toog na fi adduna yi di ko seetaan mu ni man day fiscalité fisc bi door nañ ma benn euh, benn redressement wu 4 milliards waaye dama leen du ma ko fay bu leen neexee tëj leen entreprise bi su ngeen ko tëjee man ma dem jàngale ji daara adduna yëpp di ko dégg fay ko ba léegi ñu bàyyi ko mu jàll te ñu ne léegi loolu justice la mais Pape xam waxante li fi nekk. benn candidat bi je donne son nom parce que c'est c'est c'est c'est connu de tous Bassirou Diomaye yow déggoo fii waa passé fii nii dafa buruxlu déggoo ko déggoo kii nii il est passé par les mailles du filet déggoo ko candidat dugg na ci jàmm dugg na normal ku buruxlu dugg nga normal ñu wax ko ñëpp dégg ko àddina yëpp dégg ko c'est une injustice que dañu ko dañu dañu dañu barrer la route et de bàyyi yeneen candidat yi nga dégg ni kii nii la man maa damaa jënd parrainage kii nii la damaa yàkkale parrainage. Bougane dégg nga ko mu ne ñi ma yàkkal parrainage jàll nañ ma jàllul yàkkale parrainage conseil constitutionnel dégg ko mais Pape nañu waxante li fi nekk c'est une injustice et sunu borom dafa bëgg justice te dama lay wax benn affaire wax naa la ko fii sa émission nee naa la tant que ñu ngi def injustice yi réew mi difficulté du fi jóge parce que injustice baaxul te PDS dafa mérité wul ñu koy exclure des élections pendant deux fois au regard du combat qu'il a mené le PDS est un mondial africain et le combat qu'il a mené pour l'humanité pour la démocratie pour les libertés le combat qu'Abdoulaye a mené pour tout ce pays là et ce qu'il a fait pour ce pays on exclut fils candidat de son parti pas du point de vue biologique mais candidat de son parti parce que nañ ko doo sénégalais alors que c'est un binational il n'a pas demandé à être sénégalais et à français non il est né le jour il l'a eu bokk na ki am double nationalité tey jii kooku euh, la rose baax la man dama ko dama ko ñeewantal mais yow bi ñu ko génnee leen ni am na double nationalité yow am nga méttel te conseil moom la bàyyi mu jàll te kii indi kat yi këyitam tey jii ñiy waxal nii am nañu double nationalité ñu ngi ci biir jeex nga leen te ñooñu perte nañ seen nationalité sénégalaise bu jàgg am na candidat bu génne benn décret en 2015 ni moom ci la ñàkk nationalité française la mais kooku amatul nationalité sax sénégalaise parce que le code de la nationalité dit perd la nationalité sénég le sénégalais qui volontairement euh, euh, euh, acquiert une nationalité étrangère waa liste boobu dama ni nga yor ko tey muy 19 personnes ñun dañoo sauver sax Sénégal la ma jàpp man li ma jàpp man Tafsir on a aidé le Sénégal à ouvrir ses yeux sur une institution qu'on pensait que ñoom ay sage lañu wax naa leen ne xikma xikma sunu borom mooy sagesse sunu borom bi mu koy wax saa yu waxee puissance boo ko xoolee ci alxuraan teg na ci xikma walillahi junudu samawati wal ardi mu ne wa kaana allahu aliman hakiman walillaahi junuudu samaawaati wal ardi mu ni wa kaana allaahu aliman hakiman mu ni yàlla moo moom armée yi ci suuf ak ci waaye nag ku am puissance la waaye ku am xikma la mu ni yàlla moo moom ak suuf yi ci nekk ci armée waaye ku am xikma la waaye ku am puissance la ku xam ku am xam-xam la waaye ku am ku xam la mais ku ku ku ku ku am sagesse la parce que fu mu tuddee puissance boole na fa sagesse fu mu tuddee euh, xam-xam am xam-xam tuddee na fa sagesse parce que xam-xam boo ko amee te amoo sagesse mën nga tukkal àdduna mën nga yàq àdduna puissance boo ko amee te amoo sagesse mën nga sànq àdduna mu ni hikma mu boole ci aziz mu boole ci rahim yërmande donc ñett yooyu mooy hikma muy muy muy muy muy muy muy yërmande ñoom ñoo topp puissance ñoo topp xam-xam léegi ñoom ñu tuddee leen les sept sages tuddee leen ko ni yéen ay sage ngeen c'est pas parce que da ngeen nekk ay juge que yéen ngeen nekk ñu ay sept sages ngeen loolu booy décider ci réew mi fi mu toll war nga xool ni écoutez parce que bi ñuy jël décision ni nañu voté récépissé dañoo analyser situation ni c'est compliqué kon nañ voté récépissé bi ñuy valider la liste des suppléants en 2022 dañoo xool ni situation réew mi toll te man dama leen jàpp ci benn mbir mooy les chances du conseil constitutionnel seen considérant 19 bi nga xamante ni moom la ñu moom moom moo jox Macky sàll bi muy jox Macky Sall naan ko tu peux organiser les élections dans les meilleurs délais considérant 19 ak 20 19 bi nag pour man mooy li nga xamante ne mooy li fondamental te conseil bi da ko bind man jàpp naa ni jëluñu ko en compte ni ñu ko war a jël en compte parce que dañu wax ni ñoom en l'esprit et la lettre de la constitution ils ont convoqué l'esprit ils ont convoqué la lettre de la constitution pour dire que war nañ veiller sur la paix war nañ veiller sur la stabilité war nañ veiller sur la régularité war nañ veiller la continuité de fonctionnement des institutions waaw loolu mën nga ko wax ba pare yow bi ngay décider nga xam ni kii ngay jël nii di ko décider nii de bu mu jëlee décision bi mën na bañ a am mën na am ay problème mais mais war ngaa mën a utiliser sagesse am déet nee naa ko bàyyi mu jàll léegi sénégalais ñoom ñooy xool ndax dañ ko fal wala duñ ko fal. Euh, deuxièmement deuxièmement tafsir waaw deuxièmement mu ñëw. non baal ma tafsir. soo seetloo non baal ma rek tafsir yooyu tam. xanaa war nga xam ni au moins plus de cinq minutes.